kan gu xamante ni ganal gu mag lay daal di doon kan ma fu war a ñëw di Serigne Abdourahmane Mbacke ibnu Serigne njogu Mbacke fan lay ñëw dana ñëw fii nii si département bu Koungheul war a ànd ak kan Serigne Fallou Ndiaye Rahmane kan la ñuy daal di seet si kii di Serigne Arona kañ lay doon le 26 janvier 2023 waaye nag kii di Serigne Fallou Ndiaye Rahman waaye nag moom war na fi ñëw le 25 janvier 2023 kon nag doon gàndale gu mag nga xamante ni waa Bamba Modou Coura danañ ko daal di préparé kon nag ñëpp ñu ngi si woo ñëpp nag bàyyiwoon si kenn gàndale bi kañ lay daal di am le 26 janvier 2023 kii di Serigne Abdourahmane Mbacké moo fay daal di ñëw seet si ki nga xamante ni mooy taalibeem di Serigne Arona Wagne kii di Serigne Arona Wagne gàndale gi nga ni moom la Serigne ko daal na sëriñ Jogo Mbàkke bés boobu mu war si ànd ak sëriñ Njaay Rahman bés boobu nag kii di sëriñ Aroona Wañ mu si woow waa Mawdiyan a am taalibe ngir yéen ñëpp ngeen daal di fekkee boobu Mouwar Amble 2600V et 2023 Mbàkke léegi ngeen xam ne ni am na am gan ni bu mag bu ñu waajal kan moo fi war a ñëw kii di Serigne Abdourahmane Mbàkke ibnu Serigne Ndiogu Mbàkke moo fi war a ñëw fan lay ñëw fii nii si département bu Koungheul waaye nag dana fi ñëw le 26 janvier 2023 kan la war a ànd ak mi nga ànd nga xamante ni mooy Serigne Fallou Ndiaye Rahmane moom Serigne Fallou Ndiaye ko daal di di ràññee si àdduna waaye nag war a yëngu si li nga xamante ni mooy tradition waaye ni soxla nga Serigne Fallou Ndiaye Rahmane da ngay jël numéro bi nga xamante mooy 77 389 25 35 moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman nag dana fi jiitu ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou waaye nag moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman dana fi war waaye yéen ñi nga xamante ni da ngeen kaa soxla da ngeen jël numéro yoon noonu ngeen daal di leen di Serigne Fallou Ndiaye Rahman waaye moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman doon ki nga xamante faj aajo moo si gën gaaw waaye kii di Serigne Fallou Ndiaye Rahman ñu solution faj aajo moo si gën a gaaw yéen ñi nga xamante ni da ngeen a am ay jàngoro yoo xamante ni daal dina leen jaaxal lool ngeen bëgg mu wéet a a ay feebar yoo xamante jaaxal na leen moo xam mu nekk tension wala diabète wala li nga xamante ni mooy drépanocytose doon feebar yoo xamante garaaw na lool bu mu nekk seen yaram nga xamante ni foog ngeen dootul wéet boo leen demee si Serigne Fallou Ndiaye Rahman feebar yi danañ takkaloo ak yéen dana leen bàyyi moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman wax naa leen solution a gaaw waaye nag lépp li nga xamante ni moo xam mu nekk jabet wala siti wala yéen ñi nga xamante ni da ngeen a bëgg am seen alal wala nga xamante ni da ngeen a bëgg yore seen borom kër daw leen ngeen gis ji kii nga xamante ak moom sa aaju dana daal di faju rawatina mooy Serigne Fallou Ndiaye Rahman moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman lii di wàllu rab ak lépp li nga xamante mooy wàllu jinne moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman taxaw ne dana ko faj moom daal faj xamu ne mënul waaye lépp nga xamante ni da koy faj la jàpp na lépp si yàlla la moo tax lépp lu mu faj dana gaaw wér daw leen ngeen gis jëkkii di Serigne Fallou Ndiaye Rahman moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman a daal di koy contact ko jox waaye nag kon daw leen ngeen contacté ji kii di Serigne Fallou Ndiaye Rahman képp ko xamante xamante ni bëgg nga sa ajo faju wala képp ki nga xamante ni bëgg nga ànd ak sa wérgu yaram jàmm ak salaam contactel kii di Serigne Fallou Ndiaye Rahman moom Serigne Fallou Ndiaye Rahman doon ko ñëpp nangul waaye nag daw leen ngeen gëstu ji Serigne Fallou Ndiaye Rahman